li awliyaika maxan li yashoo yaa rabbana innal wara tadarraxoo li awliyaika maxan li yashoo ilayka yaa rabbal wara yaa rabbana yaa rabbana yaa rabbana fakun lana ilayka yaa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 وهب لنا ما نرتجي في كل حين ووالد القديم قبله منعى واغلف كل بنيان بنا وهب لنا ما نرتجي فيه فأنت عالم بما نقفيه وهب لمن خفي شأسا السامع الإيمان والإحسان والإسلام واغفر ذنوبنا وأخلي ربك man qad qara'ahu ina aw kataba jàngal mu ngir yàlla jàngal mu naweerul bur yaanu si naar jaasi dobbal dafatun la yàlla daa samu ñaw mu jox yoneen ba mu fab jox siidi lamin ba yoneen ba delu fa baa jaasem ja daa samu ñaw mu jox ko seexi bamba mu fab jox siidi lamin baara jibub na lamb jandam bakk ma moo man ca aras waa dundullaay waa dundullaay waa dundullaay waa dundullaay waa dundullaay waa dundullaay na ngay ji yi yàlla ñëpp a nga naan kii lamb del su fel sopp sëriñ baar ku sopp sëriñ baar ma jugal taxaw ñu màggal maam la sëriñ xarit Abdou Aziz Baar waa jululaay waa la ñëpp a nga naan ñi làmb ndee suñu fel sabu Sëriñ maam sëñ Xaadim Mbàkke ibnu Cheikh Abdoul Aziz baara baara amina tolooy samaam sambaay Laay Baaray sa baay Cheikh Abo Madiyaanay sa baay Cheikh Sidil Muxtaar Mbàkkey sa baay Sëriñ Basiru Xuja Baaray sa baay Sëriñ Ahmed Mbàkkey sa baay Cheikh Modou Anta Maaray sa baay Cheikh Modou Aysa Baaray sa baay Sëriñ Basiru Xuja Baaray sa baay Cheikh Basiru Baaray sa baay su sopp Sëriñ Xaadim Mbàkke di ko taxal ñu màggale noonu Cheikh Fatou Laay بنى اسم الله إسماعيل سيد رمضان وخاص لما خاص البار نجد وريون ندعو أدسيون sama baay ju leen waa ñu déedéet jug leen taxaw ñu màggal sëriñ Xaadim Asis Baara baraay Moodu Laamin Moodu Laamin Baara Moodu Laamin Baara ke dara way ay maamam baan wax leen kii dabaar ay maamam kii ku sopp sëriñ Xaadim kii dabaar ay maamam sëriñ Abdou Aziz baar ay kii dabaar ay maamam sa Abdou Aziz baaraay baayam baari wax leen kii de baaraay maamam ku sopp Serigne Khadim dugal ma nga ko kii de baaraay maamam kii de baaraay maamam si Abdou Aziz baaraay baayam baari wax leen baara Aminata Lo wax leen baara Aminata Lo Bamba Fall wax leen baar Aminata Lo Mustafa Aminata Lo ko ci gis muy Bamba Fall wax leen baar ay Modou Lamine Mamadou Lamine baar si xaatim sama may sunu bër Fall murito baar ay Modou Lamine Mamadou Lamine baar ana aji Mbàkke dara may baar ku sopp soxna aji Mbàkke baar Lamin ku sopp soxna aji Mbakke baaraay Moodu Lamin si Abdou Aziz baaraay baaram baar ku sopp soxna aji Mbakke baaraay Moodu Lamin ana soppe soxna aji Mbakke baaraay Moodu Lamin Moodu Lamin baara Abdou Aziz baaraay baayam baar wax leen kii de baaraay maamam kii de baaraay maamam soxna aji baaraay maamam baal wax leen kii de baaraay maamam kii de baaraay maamam soxna aji baaraay maamam baal wax leen kii de baaraay maamam kii de baaraay maamam soxna aji baaraay maamam baal wax leen kii de baaraay maamam kii de baaraay ci baaray maamam wax leen kii de baaray maamam kii de baaray maamam soxna nga ci baaray maamam wax leen kii de baaray maamam kii de baaray maamam soxna nga ci baaray maamam muritoo baara Aminata Lo Mustafa Aminata Lo koo ci gis muy Bamba la ci baara

woorloo murit la woorloo na ñëpp def ñu magal sa Abdul Aziz Bara borom Touba ñaani saani xalarloo tey sa Abdul Aziz Bara Sëriñ Xaadim Mbàkke defar na aw gaay samp ay gaay Serigne Khadim yaa jara def waay na ñëpp dégg ñu màggal Serigne Khadim Abdou Aziz Baara dafa naw gaan ay gaay moo jara def waay tey Serigne Abdou Aziz Baara jaale naa ko waa lu ko loo Serigne Bathie Fall taalibe Cheikh Mor Lamine Baara ak doy woon Serigne Baara sëriñ Bass Fall ak bëggoon mu na wirul buryaan da daan bëgg Baara Mbàkke fu mu toll Facebook wala WhatsApp day bëgg sëriñ Baara ku sopp sëriñ Bass Fall di ko ñu magal taalibe sëriñ Baara yàlla yàlla sotti ay si kawam sëriñ Bass Fall taalibe sëriñ Saliou Mbàkke ibnu sëriñ xaari awaaba sëriñ Bass Fall yàlla yàlla sotti ay leer ci kawam Modou Ndiaye baara dawal nga sama yaram ndax fi nga ko yëkkatee neex na waaye taalibe yi Serigne Xaadim yi doomi dañ cee bokk dañ cee bokk way juru Alaaji Bàcc Fall toll ci juróom ak lu teg li muy doon doon mag Serigne Baar rek lay nooyee maa jottali ay doom mu wax lu yéeme dox ñu xiste bu yéeme sëriñ baara kooku mooy taaw alaaji bàcc faal bu jigéen bi ngay wax lii di ko daaneli fii yaakaaruma woon ni da nga ci boole alaaji bàcc faal waaye ku bëggoon sëriñ xaadim mii la kër sëñ xaadim rek nga koy fekk ba kër sëñ dan amar faal mbàkke bi nga tuddee alaaji bàcc faal sëñ xaadim dafa yëngal boppam fi mu toog daan di ndeysaan daan di jërëjëf nga xam ni kon jëmm ji ku mu dëkkal bàyyi na la xel rawatina ku mu bokkal li nga ñaanal alaaji bàcc fa yàlla ko ci yàlla jotale mu mel ni Abdou Khadre wuri wi day waaj a dem këng buñ tee yegsee nanga ma ko jox waaye xaadim mbaay sama rakk ji dafa mokkal lool xasida yi mokkal lool alquran te bëgg naa mu jóg wane boppam jërëjëf alaaji Modou eh,